xam ne lislaam moom boo xasee weesu gëm yàlla rek julli moo gën a màgg ci lépp lislaam laa tatruk bul bàyyi ak seytaana seytaane xataa yàlla xawa ba muy foyee bil xal bi ci xol ba laa tamit bul jeng la jëm ci moom ba tonta ba kon def na la yedd li ànd ko ngir naka moom yattamisu dafa bëgg a for nuura xal bi ka leeru sa xol wa yaxrimu ko te mu lay xañ lazatan bànneex min nuuri xaa ci leeru julli ga ci ne bul bàyyi seytaane muy foyee sa xol fu nekk mu jëme ko fu boo dee julli loolu boo ko defee da nga am yaraange ndax seytaane ab noonu la boo xam daa bëgg rek sa xol lëndëm ne patuus bañ a am leer leer ga nga leer ga nga war a na am ci julli gi mu xañ la ko ba doo ci jëli dara ci leer loolu la seytaane fexe kon nag da nga bàyyi xel sa noonu boobu fexe rek ba sa lépp jëm ci yàlla boo dee julli xaale ko dénk naa la fiihaa ci biir julli gi bi idaamatil xushuu ci saxal ragal yàlla wa zuhdi ak dëddu fi umuri dunya ci mbiri àdduna wala xuddoos ak toroxlom kon nee na maa ngi lay dénk nga saxal ragal sa borom boo dee julli mooy bàyyi ko xel foo toll bàyyi xel ak màggam ak sa teew fi kanamam ak ni mu lay gisee te yow gisoo ko bu ko defee nga wan gannaaw lépp lu bokk ci àdduna si lépp nag jëm ci moom waalam na nga xam bi ànd xaa ci naka julli tën xaa dana tere bila xafaa in ci lu nëbbu anil faxshaay walis ñaawteef wa mun ak lépp lu ñu sib mbaa nga ne wa mun ak lépp lu bon laakin naka waaye lii nag bi sababil kushuri nekk na ci sababas ragal yàlla laa bi xëyri yi du ci lu moom faxsha na nga ragal yàlla wanaa ita nga sorenteeg almala la yokkat mu ne julli su borom ci boppam wax na ca suuratul ankaboot ne inna salaata tanha anil faxshaay wal munkar ne julli day tee jaam bi def am ñaawteef mbaa lu bon maanaam dara lu ñu sib waaye mu ne loolu kat ba mu wax itam dañ koo takk ci ragal yàlla maanaam boo dee julli tey saamoon teeg julli ga na mu waree di teewlu màggaayu sa borom fexe ba julli gi dara bañ cee manqué kem sa kàttan loolu kat mooy tax nga am loolu ñu diggee ci julli waaye bu dee julli kese rek noonu nga xam ne mënu su ko wax ne julli waatal waaye ci dëgg-dëgg nag taxul mu amuk teewlu mbaa dara saamoon te julli ga na war a saamoon teeg dana ko wàcce farata rek julli ga dana ko wàcce farata ja waaye nag lañ soxla ci julli dëgg dëgg du ci am fakun nekkal dastihaanin di boroomu dimbandikoo bi rabbika ci sa boroom almuhini kay aji dimbalee wa inis taxante ndem sàkk nga dimbandikoo te xëy di ci kudul moom it laa toxaan deefu la nag xëy na lu baax moom day jafe waaye dangay sàkk sa boroom rek moom mi am dimbal mu dimbale la ci julli gi ba mu baax ba mu mel na ko bëggee ndax yàlla moom kum dimbali rek nga am dimbal kum dimbali wu ci doo am dimbal waaye kum dimbali rek moom lu dara diis diis daal di woyof ci yow fas li ab dog la zukira bopp tuddeef na fii ci moom salaatul maridi julli aji tawat min qiyaamin ci taxawaay wa juluusin akub jataay wa xukmihima ak seen àtte ñoom ñaar wa ma ak nga xam ne yata àllaqu dana aju bihima ci ñoom ñaar nee na dog bi ñu lay bëgg wax dañ cee bëgg a leeral ku tawat nu muy jullee lu aju ci wàllu taxawaayam ak wàllu toogaayam ak lu na deme waye jibu dana war xalaa kulli mukallafin ci mépp mukallaf an yataallama mu xamlu masaila hadal baabi masala bi li bunt idi ngir laysa ahadun dir kenn maa sooman di ko ñu minal maradi ci tawat nee na mu kàllaf mu ne nag war naa jàng bunt bi xam ko bu baax a baax ndax kenn kuy dund te doo wéré di bariwut gis kenn koo xam ne daal du tawat mukk mukk yombut kon nag kenn ku ne war naa xam masala yi nekk ci bunt bi bu tawatee xam nu muy jullee walil faridati ñeel na jullit farata minal axwaali ci ay mbir maa loo xam ne toxat du def na ko lim mën na toxat du mën na du bu dëppoonteeg maam yi sabaxatan muy juróom-ñaar la daaman nga xam ne xalima xam na nee na julli farata am na juróom-ñaari mbir yoo xam ne da ca aju te ñu war la ko leeralal aw jaba waral na alfuqaha way dégg yi fiq ada ana sunu joox alfarada farata ja alay xaa ci juróom-ñaar yooyee wa kaw naxaa ak seenu nekk tarattuban di toxtaloo juróom-ñaar la yoo xam ne ñu xam fiq nee nañu yent yi moom daa war a tegaloo ci booy joox julli farata nga xam ne boo mënee bee def ko bu tëli ko doora jàll ca bee yett ya ko mot li juróom-ñaar nag moom moom lay bëgg a leeral léegi dañoo soppare nga tegale leen waaye tegale warut bu la neexee bu la neexee man bu féete kaw bàyyi ko def bu féete suuf ci yett te du ko tee baax moo tax mu naa arbaxatun yent min ha ci ñoom xalal ijaabi nekk na ci ak waral talaatatun yett min ha ci ñoom xalal bi nekk na ci sopp yent yu njëkk yi moom day war nga tegale leen boo ci man def ko ba tële ko door jàll ci ba ca des yettee nag moom toftale ga lu ñu sopp rek la bu la neexee man bii ba noppi bàyyi ko def ba ko féete suuf te du ko tee baax amal lët yi ndaal yent ya nga xam ne xalal wujjoo bi nekk nañ ci war fal xiyaamu moo di taxaw duuna stinaadin ci dul wéeru fa xiyaamun topp taxaw bi ànd ak wéeru ay doon ba tey tumal juloosu topp toog duuna xoo ci dul wéeru tumal juloosu topp toog bi ànd ak wéeru kama bi nafsi cheikhina ni mu nekk ci yaxub sunu sëriñ ar raisi kay kilifa yent yi ñu war a tegale moom yomb naa takk da wax taxaw te bañ a wéeru teg ca taxaw wéeru teg ca toog te bañ a teg ca toog ànd ak wéeru nga xam ne kon bu fekkee mën ngaa julli taxaw te doo wéeru ci dara dara dara kon moom ngay sañ waaye yooyu jamono doo sañ a julli wéeru ci dara sus ko sa doole ba nga xam ne bu daan woon nga ànd ak moom daanu su fekkee nag mën laa taxaw jonn faaw nga wéeru ci dara nag nga door a wéeru kon taxawaay moom ñaar la taxaw jonn bañ a wéeru ak taxaw wéeru bu fekkee tëlee nga taxawaay ba toog rek des ci la ñu seet ba xam bu fekkee mën ngaa toog rek noonu te doo wéeru ci dara dara kon da ngay julli toog te bañ a wéeru ci dara su fekkee wéeru nga mënta ñàkk nag nga door a wéeru ci dara ba tey kon yow naa takk taxaw te bañ a wéeru ak taxaw wéeru toog bañ a wéeru ak toog te wéeru boole ci xad aw jaboo waral nañu tartiba zil ahwaali toftale yi leen mbir xalal mukallafi na ci mu mboolem mukallafi bi tawaali ci toftaloo nga xam ne waman yu salli ku jullee bi xaalatin ci am mbir wa qadarate mu àttan maa ma nga xam ne tawqaxaa nekk na ci kaw fal hukumu kon atte ba buttalaa nun yàqu julli la zahara goog feeñ na nee na mboolem mukallaf yi bu ñuy joox julli farata war a sàmmoonteeg yenti mbir yii nga xam ne dañuy man bee def ko ba tële ko door a jàll ci ba ca des waaye ko ci xam ne julli nga nii te fekk na mën nga ba ko féete kaw dalaa neex rek nga def ko te yàqu mu ne bu fekkee yow mën ngaa taxaw bañ a wéeru ci dara soo jullee taxaw wéeru ci dara sus ko sa doole ba bu daanu woon nga daanu julli nga yàqu ba tey su fekkee mën ngaa taxaw wéeru nga far bàyyi wéeru nga far gàppuru rek noonu toog bu dee farata mu yàqu ba tey bu fekkee farata la mën ngaa toog bañ a nga bëggul la neex rek la nofal ba tax nga boole ci wéeru ba tey mu yàqu kon yent wi boo ci man rek danga ko war a def waaye boo ko bàyyee def ko gën a féeti suuf rek ci kaw sa coobare rek julli ngi yàqu amat talaasatu daal yett ya allati ya nga xam ne xaddunu di ba soppeef na tartiibu naa sunug toftale laxaa ñeen leen xalaamaa ci kaw li nga xam ne untuxi ba tànneef na ko salaatu man mooy jullit ka nga xam ne wanaa lottu na xan xalaa jam bi ci wetam nga al aymani kay ndeyjoor fal aysari topp wetuk càmmoñ ka wila an ci ak toftale su ma xàll zahri topp ci gannaaw ga nee na yi nga xam ne moom dañoo sopp rek nga tegale leen waaye tegale nga warut mooy bu fekkee yow mënoo dara dara ci toog tëdd rek moo des kon dañoo bëgg nga tëddee sa wetu ndeyjoor bu ko defee nga jublu xibla ba noppi tëddee wetu ndeyjoor su fekkee tële nga boobu nag nga tëddee wetu càmmoñ te lépp nga jublu xibla sa kanam jublu xibla su fekkee kële nga wetu càmmooñ nga jaaxaan boo jaaxaanee say tànk day féete xibla sa bopp jëm wet ga ca des ki bu dee ci nun xibla dañoo xaw a féete penku sa tànk day jëm penku sa bopp jëm soowu kon yett yi moom noonu lañ ko soppee nga tegalee ko ndegam tëdd rek nga mën bu fekkee mën ngaa tëdd wetu ndeyjoor na nga tëdd wetu ndeyjoor su fekkee tële nga ko nga tëdd wetu càmmooñ soo ko tëlee tëddee gannaaw te mooy jaaxaan fa in xaalafa ndem jiyoon ak ndigal fii haadi salaasati ci leet ko it fa xufi xeñtoof na ko jaa isan mbir moom yi aji dagan fekkee ne yett yi moom tegale woo ko ci sa coobare du du tee julli ko baax bal ne nga mën a wetu ndeyjoor bàyyi ko tëdd wetu càmmooñ mbaa nga mën a wetu càmmooñ bàyyi ko jaaxaan du ci wàññi dara te mas du naa topp sunu wéeru àll nga xam ne tabbatu dana yàqu bii ci moom salaatu qaadiril qiyaami jullit aji àttana taxaw fanta bis na nga yeewu huwa moom istinaaduna mooy suñu wéeru li shay in jëm ci dara loo xam ne nasqutu dana nu rot mooy dana nu daanu xinda suqooti fa rotam nga mooy fa daanoom nga la daaman fa ka nga xam ne yokku situ dana maandu nee na gi nga xam ne soo ko defee te mënan koo bañ a def sa julli yàqu mooy nga wéeru ci dara sus ko sa doole ba nga xam ne bu daanu woon nga ànd ak moom daanu wéeru gu mel noonu mooy yàqu julli waaye bu dee wéeru xam ne moom susoo ko sa doole nga xam ne bu daanu woon tam yow du la tax a daanu kon dañ koy sib rek yem ci nga tax mu naa amma isa lam nakku ndaal ndeem nekkunu naskutu di rot walaw saqata ak doonte rotoon na da chey u mi le mbir fa makruhun kon lu ñu sib la rawaw nett li nañ ko fekkee daal mën ngaa bañ a wéeru wéeru nga nag waaye wéeru nga taxu koo am doole bu baax nga xam ne bu loolu daan woon ni du tax nga daanu kon def nga luñ si rek waaye lu tey julli nga baax wa intu gis ndéem da nga daganal li qaadirin ñal aji attan xalal xiyaami ci taxaw julloo saxoo toogam nga tana fulan ci la falam tulaama kon deefu la yedd nee na bu dee naafila moom bu la neexee mën a taxaw ba noppi bàyyi ko toog te du wàññi dara farata kay mooy li nga xaw ne moom soo mën taxaw taxaw rek ngay sañ waaye bu dee naafile moom mën ngaa mën a taxaw ba noppi bàyyi ko toog te du wàññi dara laakin noxoo waaye moom nag fii xawli kulli xaalimin ci waxi yëpp aji xam yuq daa def na atte wala def na fay loxoo ñal ko bi nis fi ajuril qaayimi ci genn wàllug yoolub aji taxaw jax waaye nag bu fekkee mën ngaa naafile taxaw nga bëgg am laay ba tax nag nga toog nag bàyyi taxawaay ba tuyaaba ja nga war a am boo taxawoon dañ koy xaaj jox la benn xaaj bi ci bi nga toogee wa jaww soo daganal nañu du xoola xaa tàbbit naa fi la ga man ka nga xam ne jala sa toogoon na su ma yàquwum topp dana jógaat baax de zalika ci gannaaw loolee xisan na nga xiyaas nañu bi ngay naa fi léegi nga tàmbalee ko toogaay gannaaw ba nag nga jóg sawara daal di koy mottalee taxawaay jàppal ne naafile nag moom ñaar rakk ñu ne rek ñoo bokk ba àtte nga tàyyeel tàmbalee toog ci naafile gi jekki-jekki sawar jóg daal taxaw ci ñaar rakk ñu suli saa la neexee rek mën ngaa tàmbalee gàppuru ba yàgg nga jóg taxaw te du wàññi dara ba tey wa in daxal taxaa ndéem tàbbi nga ko moom naafile ga wa anta te mbir moom yow dul xiyaamin boroomu taxawaay nga war tajlis te ngay toog baax du ci gannaaw ba it falasta diir yow daamalaamin ngay boroomu yeddeel ba tey nee bu fekkee ba ngay tàmbali naafile ga da nga koo tàmbalee taxawaay gannaaw ba nag nga tàyyeel daal di toog ba tey loolu sañes na ko lim la waxal léegi ci way yooyu moom mooy da nga koo tàmbalee toogaay gannaaw ba nga jub taxaw bi wax li nag mooy nga tàmbalee ko ab taxawaay gannaaw ba nga far toog lu ci mën doon rek sañes na ko waaye nag bu mujj bi moom da nga ci sart ilam tëkkun dem nekko woon daaxilan di aji tàbbi ca naafila ga bi ni yëg xiyaa mi ànd yéene taxaw fayum na ko kon def ne tere aljulóos jataay ba abadan faaw bu fekkee ba ngay tàmbali naafila ga da ngaa taxaw naafila ga kon taxawaay boobee nga tàmbale rek mooy wéy xanaa nga dem ba tële rek door a toog waaye ndegam moom da nga caa yéene ak taxaw moom taxawaay boobu nga yéene rek moom nga war a sottal moom nga war a waaye bu fekkee yéene woon taxawaay bi nag moom kon mën ngaa tàmbale taxaw bu yàgg nga wëlbati ku toog fas lu di ab dog la bukki ne bopp tuddeef na fii ci moom xadaaul fawaiti fay julli ya faat wama ak la nga xam ne yata àllaqu dana aju bihi ci moom wax nag bu la ay rawee noo koy fayee ak lu ci aju xadaa uma fay la nga xam ne fii dimmati nekk na ci baat minal faraid ci farata yi bi fawrin ànd akub gaaw kul waxal ne wujubu ko waram nga yuraa def na ko gis nee bu fekkee ne amee nga borob jullik farata muy genn mbaa mopp ko kon nga taxaw temb temb ci fay ko te bañ ko yeexe lum tuut tuut lu war la xanaa bu fekkee mën laa ñàkk lekk te amooloo lekk mbaa lu farata farata ci foo dugg fatu ca fekk ci tàngaayu sedd wala yu mel noonu rek maanaam daal sa dund bopp mbaa sa dundu njaboot ba nga xam daal mënta ñàkk moom bu a taxawoo ngay jëm ca loolo ba loolo sotti nga door a jëm ci fay bori julli farata yi waaye nag saa yoo xasee amal sa dund rek ak dund njaboot ga rek ca bis ba rek daal di war a taxaw temm ci jëmale sa yitte yëpp ci fay bor yi nga xam ne moom nga amee ci bori julli wala mu yejus dëgganut tafriitu man sàgganut ka nga xam ne tarab taba taftaloona moom fay ga xàll si war ko fii ca fay ga fajtihaadun ak farlu daal wajaba war na nee boo xasee am ay bori julli farata mu gàllu ci saw daal du dagan nga di ca sàggan lu mu néew néew da nga war a farlu bu baax a baax taxaw temm ci fay leen wa kullu man képp koo xam ne nag sàllaa julli na fii kulli yawmin ci bépp bis xam san juróom minal ayaami ci ay bis fi mu ci jullikaay ba fa innahu naka kookee lay sa déet moom minal mufarritiina muy bokk ci way sàggan ña ba li fi nekk innahu naka moom yu du def na ko lim min mujtahidiina mu bokk ci way farlu ña nee na su fekkee bari nga ay boru julli waaye fexe nga ba bis bu ne rek nga fay juróomi bis ñu ngi koy defe nag mooy julli farata goo julli rek fay juróom teg ci fa saasa ci misaal boo jullee tisbaar daal di fay juróomi julli boo jullee saan daal di fay juróomi julli teg ca boo jullee timis fay juróom teg ca boo jullee gee fay juróom tek ca boo jullee suba fay juróom teg xam nga loolu boo ko defee benn bis bu ne fay nga ci bis bi waaw ndax xam nga bis moom juróomi julli moo ci dëkk ci bis bi kon nag ndegam genn julli goo julli rek fay juróom teg ca su bis bi su bis jeexee rek fay nga juróom bis waaw bis bu ne rek fay nga juróom bis loolu nag nee na ku ko def ñu jàpp ne yow farlu nga bu baax a baax kenn du la boole ci way sàggan ñi jàpp ne farlu nga bu baax ci fay say bor tuqudaa def na ko fay moom julli kama faatat naka mu rawe fa waqtul xadari waxtu teew fa xadarun ak teew a koy fay wa diddu safaan ba waqtu safari mooy waxtu tukki wa sawaawun way yemoo la in kaana ndem nekk na musaafirin di aji tukki la daa fa fayam nga aw xaadiran wala muy aji teew yabxi tuj dana sàkku alhuda jub ga nee na julli nekk na mu la ray woon rek nga koy faye bu fekkee laara woon ci tukki te fekk nga daa wàññi ci tukki ba kon boo ko dee fay da koy wàññi ba tey bu fekkee ba mu lay raw boobu tukki mooy ak teew xam ne da nga daa matal julli kon ba tey boo koy fay da nga koy matal buñ seet nag waxtu wa ngay fayee waxtu wa nga lebee la ñuy seet moo xam waxtu wa ngay fay daal moom da ngay tukki moo xam da ngay seet rek ba ngay amee bor bi rek booba ci loo nekkoon bu fekkee booba da nga daa wàññi booy fay nga wàññi bu fekkee nga daa matal booy fay nga matal waratib na nga toftale wu jooban ci lu war yaa basira ñëw aji gis bay na xaadiri ya tey ni diggante yaari julli yu teew waya siiri fawaitin ak way néewi faat maxallat yi ànd julli nga nga xam ne xadd xadarat teew na in lam tëkku ndem nekkoo woon naas yeen di aji fàtte waxtal ci waxtu fay wax yaa man yow nga xam ne fàttina xelu na nee na yaay julli yoo xam ne ñoo bokkaale waxtu te ñoom ñëpp xaj nañ ci waxtu wa day aajowo nga tegale leen tegale goo xam ne mënta ñàkk boo leen tegalewul rek ga nga jiital te wartoona jiitu moom du baax say boo jàpp na yi bokkaale waxtu mooy tisbaar ak takkusaan dañoo amuk bokkaale daañu ko leeral nañu ko amee timis ak gee dañoo amuk bokkaale daañu ko leeral nañu ko amee yëpp yaay julli am bokkaale ci waxtu noonu nag moom bu fekkee yaa ngi seen waxtu te xaj nañ ci waxtu wa te fàttewoo ko day war nga jiital nga jiitu teg ci nga ca topp su fekkee defoo ko rek du baax mu ne fi mu nekk ni takkusaan jot na bu fekkee julli woo woon tisbaar day war nga njëkkee tisbaar teg ci takkusaan mu door a baax waaye boo ko teyee njëkki takkusaan tam boo jullee tisbaar war a baamuwaat takkusaan mu tegu ca ndax tegale ko ab sart lay doon ci wérub julli ga timis ak gee it noonu la bu gee jotee te julee goo timis te nga tey ko fàttewoo ko da ngay njëkk a julli timis door cee teg gee waaye soo ko teyee jëkk a julli gee boo noppee itam ci timis ji faaw nga baamuwaat gee ndax yooyu jamono seenu tegale lu war la daa war ba noppi nag boole ca di ab sart ca wérub julli ga nga xam ne boo leen tegalewut da nga jiital moom te war ta jiitu du baax foofu na ko teqalee noonu bu fekkee itam julli ya raw nag dañoo bariwut mooy wëya siiri fawaayitin ji way yi ñeent moom ñëpp maase na ci ne néew na amul werante juróom benn ñëpp maase na ci ne bari na amul werante juróom kay ci lañu wute ndax da koy boole ci néew gi am danga koy boole ci bari gi yow nag say ba ko ci bari ga rek mu la laa noppal nga daal di wax ne kon bu fekkee la raw ci ay julli bu fekkee la raw ci ay julli dafa nekk yent mbaa yett mbaa yaar mbaa genn am genn gu jot nga xam yaa ngi ci waxtoom day war nga jiital yooyee nga xam ñoo la raw te néew ba as ci gii nga xam ne yaa ngi ci waxtoom tor koo julli bu la wóoroon sax boo jullee yee ba agsi ci moom fekk ko moom mu raw la war a jiital yooyu ba agsi ci moom jot fekk julli woo woon suba mbaa julli woo woon gée géeg biig ak suba mbaa timis démb julli woo ko woon nga xam ne kon ñett lay doon boobal timis ak suba ak gée kon day war nga jiital yett yooyee baax agsi ci tisbaar door koo julli doonte xam nga ni sax boo dee julli yett yee danga fekk la desoon ci tisbaar waxtu wa jeexit du tee loolu waru gar la waaye nag waru gar la waaye moom du sart ci wérub julli ga maanaam bu fekkee tëgali woo ko noonu it dangaa jëkk a julli tisbaar door a fa yett tee mu baax bàkkaar rek ngay am ci war gaa tegale te tegale kon jàppal ne bu fekkee bokkul ak yaari julli ya bokkaale waxtu moom tegale ga war na nii waaye nag boo ko defutit ngay am bàkkaar rek de du ko tee wér mel na tisbaar jot sax nga fàttaliku ne julli woo woon suba la neexee tey ko ba noppi njëkka julli tisbaar door a julli suba waaye nag da am bàkkaar ci ñàkk gaa tegale ndax da ngaa waroon tegale suba jiitu tisbaar mujj mu des nag àtteb bu fekkee la ci ay julli daa bari te waxal nga ne juróom benn moom jëm kaw bari na amul genn werante juróom it saye boo boole ko ci bari ga rek mu gën laa noppal su boobaa moom bu amee julli gu teew da ngay jiital julli ga teew door dellu ci yooyee sa gannaaw mooy yàlla raw ba noppi jëkkeel ga teew rek doora dem ci yooyee la raw jooju wax daal lañ gën a sukkandikoo de sax am nañu wax ne su fekkee waxtu waxatut sañ ngaa jiital yooyee rawoon ba ak si gii nga xam ne moo teew waaye daal lañ gën a taamu rek mooy ndegam yàlla raw xas nañ bari rek jiitalal gi nga xam ne moo teew ba noppi nag wëlbatiku fay yooyee waaye nag foofu na nga bàyyi xel ne su waxtu waxatoon ba nga xam ne boo fi dee fay yu bari yooyee bu agsi ci gii nga toll fekk mu raw la moom it ne ñoom su boobaa moom doo sañ a jiital yooyee la raw déedéet faaw dee war kon nga jiital moom mi teew bala mu la rawe na la yooyee rawe woon nga seetlu nag li mu wax ne ndegam fàtte woo woon dalaa bëgg a wan ne su fekkee fàttee tax nga jiital gëwërte jiitu doonte jiitu ga daa waroon it waaye yow fàttee tax defoo ko niki nga julli takkusaan ba àggal door a fàttaliku ne julli woo woon tisbaar kon moom dana baax dañuy sopp rek boo jullee tisbaar ba àggal te waxtu wi jeexut nga baamuwaat takkusaan ndax ñu tegaloo nañu war a tegaloo ama yasiruha ndaal aji néewi faatiya aji néewi way faatiya fa arbahu salaatin mooy yenti julli waddoonu ak lu ko yées laamaa waxuñu la nga xam ne fawqaxaa nekk na ci kaw ñeent inda siqaati fa ñeen ñi dëgërloo nee na daa waxoon léegi way néewi faat maanaam bu fekkee julli raw bëriwuñ am genn gu teew nga nekk ci waxtoom mu ne la nag way néewi faat yi mooy ñeent ak lu ko yées ñeent ñett ñaar genn loolu mooy lu néew la nga xam ne waman yakun ku nekk xaala yi di ko war arbahun yent xul waxal ne aw aqallu lu lu ko yées fal yaqsid na jublu qadaaha seenuk fay walaw xaraja ak doonte nar naa génn nar naa jeex waxtun waxtu lillati ñeel julli nga xam ne qad xadara teew na kama dur yi naka xameef ko fi nafsi bi fiqhin ci yaxu borom fiq sabata bob sax na ne bu la yent julli waree mbaa lu ko yées am genn gu teew koy dangaa war a yent ya mbaaloole ko yées ba ak gi nga xam ne moo teew doonte xam nga ne sax bala ngaa noppi ci yooye far gi itam raw la du tee rek loolu moo la war waaye nag boo ko defuti bakkaar rek ngay am du tee julli ga moom wér wa jawwasoo daganal nañu alqada fay fii kulli waqtin ci bépp waxtu fay bor moom nangu nañ ko ci waxtu wu ne waxtu wañ araamal naafile sax nit bu jant bi tàmbalee fenk te lépp fenk gut mbaa ba mu tàmbalee so te lépp soxagut ba waxtu sibayam moom fay bor rek sañ ko ci waxtu ni daal moom wa mën a oo nañu nag wa a oo tere nañu naf la naafila li ma ñeel koo xam ne lëxoo ñeel na ko xadaawun ak fay saa yoo xasee bor boo war a fay ci julli nag moom doo sañ a naafila ndax xam nga naafila da nga koy coobarewu di ci yokk di ci bëgg a yokk tuyaaba rek kon nag boo xasee am boru farata boo xam defoo ko doo sañ a naafila ta la tanafuli duha kem naafila yoor yoor ba ramadan ak ramadan boo xasee amee bari julli moom doo sañ a julli yoor yoor ci misaal doo sañ a julli naafili ramadan doo sañ a dawal tisbaar mbaa takkusaan mbaa naafili gannaaw tisbaar yu demee noonu déedéet loolu nar a naafili rek fayee ko bari nga xam ne kon su waxtu ramadan jég jegesee nga war a seet ba xam bu fekkee amee woon nga ay bor nga seetlu ba nga kàlle feeg léegi ba xam bu fekkee am na waxtu boo xam julli mbaa daanga nga waaye booba xam nga na daal daa julli xamoo ko woon da daa baaxutoon yooyu yëpp kon boo tool ci ramadan la nga nar a naafil ramadan far ko fay bor yooyee bu la wóoree nag moom da nga wees ba nga tàllaseen léegi moo xam xamoo ci benn bor boo amee ci borom ci nag kon baax na kon mën ngaa naafile naafilay koor yi laakin waaye jawaasu chef yi daganuk safaam nga wala witri ak wetar baana feeñ na daa am na ay jul yo xam ne fonk lool moom duñu sax waaye du tee boo amee bor ñu may la nga leen di def bokk na ca safa wetar wetar dañoo jàpp ne moom mboolem julli sunna yi wetar moo ci gën a dëgër nga xam ne boo weesoo farata yi wetar moo ci sës ci màgg te benn ràkk boobu nga xam ne day njëkkee safa maa day njëkkee ñaar door ko caa teg ñaar yi koy jiitu moo tudd achafu muy tollan al witru benn boobu moom firi tool muy benn kooku moom loo bari bari boro ñu may la nga def ko te mooy safa wetar misluhuma seenum kem la alxiidaani yaari xiid yi ba tey julli korite ak tabaski julli sunna lañu ñoom itam loo bari bari bor ñu may la boo ci àggee def leen wal kusuufu ak julli muuru weer fajrun ak ñaar rakkay fajar wal istisqa ak julli mbaaw wal kusuuf ak julli muuru jant julli muuru jant maase nañ ci ne moom sunna su dëgër la julli muuru weer kay ci moom lañ nattable am ñu koy wax lu ñu sopp am ñu koy boole ci julli sunna yi waaye yooyu yëpp moom may nañ boo amee ay bor itam nga leen di julli su xeexe yooyu amee mooy jant bi muur mbaa weer yi muuru ñaar rakkay fajar lu ñu fonk la ñu ko tuddee raxibatu raxibatu mooy loo xam ne bu julli sunna yi jàllee moo gën a màgg moom itam loo bari bari bor ñu may la nga def ko ak julli mbaaw julli mbaaw moom it sunna la mooy su ndox manqué ñu bëgg a ñaan yàlla julli ndax may leen ndox mooy julli mbaaw moom it sunna la lu bari bari ay bor ñu may la nga def ko wa jawwasoo daganal nañu ijtimaaxa qaadina dajeg way fay idastawat neem yemoona salaatuhum seen julli bi taayin ci ràññeele fa xis na nga xiyaas nee nañu amee ay bor waaye seen bor yi yenn yee dañoo amee bor jugi waaye ñoo yemle képp képp xam nañ ko bu baax a baax kon bu leen neexee def mbooloo am ku jiite ñu ànd ak moom julli ñi ñoo xam ne ñoo bokk yaari julli raw leen te xam nañ ne yaar yooyu nangam la julli sàngam ak julli sàngam la wala ñoo xam ne wóor na leen ne démb julli ci waxtu sàngam ñoom ñëpp ñoo yemale ay boro julli kon kenn mën naa jiite rek ñi des ànd ak moom ñu daal julli mel na julli gu koy defee rek mën nañu koy def julli raw waman ku nekk naasiyan di aji fàtte yaa ariban yow aji xellu xadadama li mub la nga xam ne xad wàjje ba war na dina xadaa yi fay fa innahu naka moom yàqul di dana fay yu day julli xadadan ab lim lam yubbuxi boobu desal shakkan benn sikki sàkka yaa tariixi yaa tariixi boobu dana ko gaar abadan faaw nee na koo xam ne wóor na ko ne am na ay boru julli waaye xamul nu mu nag kooku la gën a mooy day fay di fay di fay ba mu wóor ko ne lam leboon tolluwutoon nii waaw koo xam ne wóor na ko ne daal am na ay boru julli yu mu amee ci ak dundam waaye xamul nu mu toll day saxoo di fay rek di fay di fay di fay ba mu wóor ko ne daal ca dëgg-dëgg woowu wër na kon tolluwutoon nii bu fekkee xamul gu tàmbalee ñu soog mu tàmbalee tisbaar waaye léegi mu xamul gu ci njëkk rek gu mu tàmbalee baax na al baabu lii moo di bunt ba ak taan yi bay aji ñaareel sunna sunna leef na sajadataani ñaari sujjóot li saxawin ngir jàmm wacc wala nga ne ngir juum rek baana bu feeñ na mina siyaadati ci dolli awi nuqsaani wala wàññi nee boo juumee ba yokk ci julli ga mbaa nga juum ba wàññi ca julli ga daañu sunaal nga sujjóot ñaari sujjóot ndax defare ko yokk boobee mbaa wàññi boobee taxoon nag ndooleen ak wàññeen fa mu leen di sujjóotale nekk benn déedéet ku ci nekk daa am béréb boo xam ne fa nga koy defale ñaari sujjóot ña fazzidu ndolleen sajidataahu ñaari sujootam min baadi salaami nekk na ci gannaaw sëlmal ba baxdahuma nekk na ci seen gannaaw ñoom ñaar tashahudun taaya tumma salaamun topp beneen sëlmal bu fekkee da juum ba yokk ci julli ga kon na ngay julli ba sëlmal daal di sujoot ñaari sujoot dellu taayawaat nag sëlmalaat kon loolu leen noonu lañ koy defal sujjut na nga sujjoot li naq si ngir wàññi min qabli salaam ci njëkk sëlmal baax da tashahudin ci gannaaw taaya wasit ta nga dolli aaxara jeneen taaya fekkee da ngaa wàññi nag moom da ngay jullee julli ba nga xam ne taaya nga ba wax asalaamaaleykum rek des ca nga bañ wax nag asalaamaaleykum daal di sujjoot ñaari sujjoot gannaaw boo sujjootee ñaari sujjoot ñi nag nga baamuwaat taay ji door dañoo bëgg salmal bi topp taay moo tax ngay baamuwaat taay ja wa in naqasta ndee wàññi nga summa sitta topp nga dolli fas judan na nga sujjoot qabla salaam yi nga njëkk si salmal maa ci kaw li nga xam ne waxtu mi da sukkandikoof na ko bu fekkee da ngaa boole yaar yëpp nag nga xam ne bu